incha allah incha allah dana lool ci kaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw bangun bangun lepas amri lepas lepas diwager wager satu apa tuh lima ada lembar lembar lagi ini lembar lembar kesir Oke, karena itu udah video orang cuci apa sih hanya? Cerah, Aman, jadi. Itu lah. Ayo, ay jaas ka yow daal salaamaaleykum Amath Dia dégg naa leen Pro, pro, pro. Am pus am. Sapiale. Naka la toog def. Waaw gis nga noonu la def. Waaw mu ngi def kay ñu def. Kii bi sol ndox bi sol ndox. Waaw waaw loolu dama leer. Waaw la jàpp. Waaw. Mo dama kalal di bal. Mo dama kalal di bal. am àfisẹ́ wà lórí àwọn ọmọ lọ́wọ́ kìí bá ọ. oo mbër mi. booy tournée ñu Thank you.

non. baax na am na solo. ba xale Alioune Seye Junior yaa ngi noonu. waaw ba tey ñu nekk ak le course ron mu nekk course écrit waalo course avant tout ñu nuyu la waaw mais ni ma koy tàmm di waxee rek yéen moom c'est la famille bon ñu leen di fay gannaaw bañ sant yàlla julli si bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ si sud bi nag suñu sud di ñaan suñu borom def si jàmm ndax waa ji ko yor xam la photographe bi moom yaa ma gën a xam bu ñëw photographe loolu lay indaale moo tax am benn problème mu def baal naa ko garaawul ah, loolu am solo mais bu aussi am combat capital diggante ak ki nga xamantene moy mbay gui combat boobu avant tout ban tolluwaay la am ci yeen wa mais combat moom so bëggee dëgg la ya gisal sa bop mooy li may wax mbeur mu mbër mu daw da ngay entraîner entraînement moy galaju mbeur mbër yi dañuy jël sëriñ teg ko galaj no sëriñ mooy mujj entraînement moy mbeur ak sañ-sañ ñun da lay gungé xam nga la tàggat la mais dafa am lo xam yaaka yaakaar na ci bir géew moy sañ-sañ lamu ji ko amul sañ-sañ bi nga dem tok ko am sañ-sañ da ngay daan du galaj mais amal sañ-sañ dengo bi ku ci am sañ-sañ rek bo beure da ngay dem daan loolu mooy l'essentiel bi. waaw course muy bëri un combat capital wax ñëpp xam ne dafa jógee ci tolof tolof diggante ak double moteur mu jël ki nga xamante ne mooy mbay gi mu doon adversaire boo xam ne adversaire bu redoutable aussi. waaw waaw waaw xam nga làmb moom soo bëggee dëgg-dëgg làmb moom soo bëggee dëgg amul làmb ju ndaw te mbay gu gi adversaire la boo xam ne adversaire bu ñu jox cër la bu ñu respecté booy bi li ma daal mooy mu dawee fulla ak fayda fulla ak fayda ak jom mooy daan booy bi mu def fulla ak fayda ngoon gi le mi ngi ñëw entre mi ngi ñëw saabu di contact loolu l'essentiel bi dégg bi kon li des mooy fulla ak fayda ak jom loolu daal laa koy wax bu demee fulla ak fayda bu demee daan waaju ñibbi si waaw bu ñu ñëwee ci façon bi nga xam ñaari mbëri dañ koy bëree ki nga xam mooy mbay guy gi moom day faral di fermer topp adversaire am Papa Diaw nekk na ko xam te Alioune Sèye Junior nekk ko xam te ne songukat la ko xam te day fermer te mom attaquant suñu boroom tamit attaquant la mom ñom suuf lañu dajé lam ñom so bëggé dëgg-dëgg ñom ñaar suuf lañu dajé waaw ñom ñaar suuf lañu dajé ñom ñaar mom suuf lañu dajé inshallah rabbi allah rabi. côté boobu ngeen ci bu baax. hein da côté baaj waaj ngeen ci bu baax. waaj ngeen ci bu baax baax moy li ma rek liñ liñ ci wara def yëpp def nañ ko ci liñ ci wara def def nañ ko moom mooy indi fu la fay ak ñoom zéro combat bi mais liñ ci wara a def yëpp def nañ ko ci moy tek bakanam fu la fay fayda dem jë dem waaj ñu ñu bu ñu bi lool daal lañ koy sant inshallah rabbi rabi. ñu lay sant di la gërëm bu baax tey ñu nekk ak le grand fils de Balla mu bëree récemment am ndam lu rëy ci kaw ki nga xam te ne mooy Tapha Lar champion avant tout ñu ngi lay nuyu waaw Guèye maa ngi lay fay ginnaaw ba ñu sant yàlla julli seen ñu ngi sant suñu ñaari waajur baax di gërëm ñëpp ñuy jàppale di suñu doom nday Alioune Sèye Junior yàlla may ko ndam dimanche waaw ah, champion lan ma waral teewaay bi tey waaw Papa Dia moom dafa nekk nit ku baax rek buñ xewlee day teew moo tax bu ñëwee bu xewlee foog ñu ñëw suñu sama bés dafa ñëwoon moo tax bésam foog ma ñëw mun maa ñàkk bañ a bi nga bëree ba léegi déggaatuñ la yaa ngi am ay proposition combat wala. waaw waaw am na ñu ma proposé quoi mais si ñoom la des waaw maa ngi maa ngi toog xaar rek am ñu ma doon wax mais maa xaar rek. ku ci mel ni kan kan. ku ci mel ni am na dem amul combat Tafa Boy Bambara Tidiane Faye amul combat ne ñoo ñu bëre ay morom lañ ñoo ñu bëre balaa ati di dem. ñooñu ñëpp ñu ngi koy démarché mais seen côté la dese. seen ñoom la dese man xale laa rek pare naa pour ñu bëre. bu loolu weesoo mbër comme li nga wax léegi Alioune Sèye Junior sa doomu nday am combat capital di bëri ki xam te mooy mbay guy gi mbay guy koo xam mu nekk mbër woo xam te dafa offensé bu arbitre du xaar tey combat boobu nan nga ko gisee mbay guy gi maax moom bëri woon nañ sax bëri woon nañ làmb la làmb ju neex la mais dañ koy ñaan waxu mu rek làmb ji ndax booy da ñëw pour jëm agressé ko waaw na tey rek làmb ji bu na dajek moom na xam loolu am na solo bu loolu weesoo tamit tey mu am benn xew-xew bu am Balla Gaye numéro 2 ak Elton ñu daal leen boole ñu daal di juboo mu doon image bu am teen lu rafet la yow lan nga gisee loolu waaw loolu lu rafet la ndax ñun fa lañ nekkoon ñun ñëpp ñëpp la boole woon doon jubóole te loolu dafa nekk geste bu rafet rek moo tax waaw waaw géej waay gars kenn mënul dugg seen diggante ñëpp ñoo bokk waaw ngay tàggatoo waaw dañu ñaanal tàggatoo di ñaanal Papa mbër lan moo waral teewaay bi tey. waaw li waral teewaay bi mooy géejawaay gi rek parce que xam suñu doomu nday mooy bëre suñu lépp waaw muy Alioune Seye Junior di ko ñaanal yàlla suñu borom may ko ndam daal moo waral teewaay bi. waaw mu am combat capital di bëri ak mbay guy gi mbër boo xam ne dafa offensif tey yow boo koy digal lan nga koy déy. waaw li ma koy digal mooy mu ñëw appliquer rek li mu liggéey gëm boppam xam li ma la wax nii parce que affaire loolu la quoi boo mais buñ ñew di soralé xam nga lii laa war def ak li la war a def bo defee rek ngay juum lima koy digal dal mo mu ñew gëm bopam nek ci limu wara nek a nekk xam nga yaa ma gëna xam dal bu loolu weesoo nga am combat sa diggante ak boy ball ba légui fixé go len dat wala. non ba légui fixé guñu dat ñi ngi déglu promoteur bi ah parce que si mom la des ndax mi ngi am ay journée bi mi tëgg ni mais boo moytuwul xam naa après corps la ñi jëmele quoi xam nga mais nak ñi ngi xaar rek yalla bax na dal mais yaa ngi ci waccay bu baax. wa ñi ngi ci waccay nak ñi ngi ci waccay bu baax parce que xam nga Lima ma lay wax rek combat bi combat bu ma la fonk boo xamante ni nii xam nga ndam rek moo ma si war daal ndam kase yooyu. waaw Bécaye ba tey ñu nekk ak ndaanam kenn door ko présenté Aliou Seye numéro ziar naa la. waaw Aada maa ngi di la ziar wér wér wér wér. sa poulet papa Aliou Seye junior sa turandoo di bëre un combat capital nan nga ko waajalee. waaw waajal ko comme ni ñu koy waajal combat rek di ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal ndam wax dëgg yàlla li ko ci combat bi yëpp def na ko ni mom moom rek moo ci des du ko ñaanal may ko rek ak tal ak may ko adversaire ba jour lamb yàlla defal ko ndam li sedd ci muy bëre adversaire bam dafa offensive arbitre daan prime mu dal sa kaw dal impose lim gem est-ce que liguey ngeen ci côté bob bu ko bu ko seytaane jey ba mu ba mu beure lol mu beure su ko beure ñu daan ko jël wu gaaw te te waaw ba mu ben wérante ci barki Seydina Mohamed manam bu ko beure ay ay mbokam dañ ko leung ñep yop non lu leer bu dé gaaw Papa jamo gëna gaaw fouf bokku ñu sax xëy lam mo moo tëral rek mais Papa jamo won sax jël jël jël mbay guuy gi barki Seydina Mohamed mais lam mo toor foo xamanteni ni luñ naan du xam du maas ak dabata noonu la demee moo tax mu jël ko mais bu làmb rek waxoon dëgg warul bëre mbay guy gi barki Seydina Mohamed. pare ngeen ci côté yëpp. waaw pare nañ ci côté yëpp ci côté physique beeg moral beeg lépp pare nañ li ci des moom nañ ko ñaanal yàlla rek yàlla defal ko ndam li seddu guy ci barki. sant bu baax di la gërëm. jërëjëf Aara kontaan nañ torop.

kon man xam naa xam naa li ma war xam naa li ma war. ngay bëre ngay bëre ndaanaan naka ngay waajale combat bi ak seen bopp. mbay guy gi ndaanaan la ma bëre ñu ko gën a xotteeku biir sa mère bëre coins bëre waay yow bëre ay ay mars bi moo ma boole moom te yéen après ngeen di comprendre arène ñu ñooy borom ñoo ko moom. ñoo ko moom bokk ñu ko kenn wala yaanuñu ko kenn kon combat bi mooy suma premier grand combat foofu daan naa daan naa bëre nag mais maa ngi doog am combat ndax combat bi xam naa waa yëmbal ni ko respecté. ndax combat bi dina am xeex. mënul ñàkk mënul ndax sa ku ko bëgg a daan foog nga duma ko mënul ñàkk mënul ñàkk. kon ñi ma bëreel ñoo gën a xotteeku moom kan ak kan la bëreel. kan ak kan la bëreel. waaw wax daal mooy. li ma koy wax daal mooy moom lu ne mu koy wax naan ma sama tànk yeeg sama nangam nangam du ma ci dugg ak du ci kii moom mu ngi xaar tànk mi kon dama ci dugg wala du dama ci dugg ok waaw kon kon moom yeewi na boppam ay sama tànk yi boobu boo ci duggee nangam nangam kon mu ngi xalaat man ma ñëw ci tànk <laughs> wax baaxul. ñu gis ni da nga bëre ki nga xamante ne moom mooy mbay guy gi mbay euh, mbay Diouf mu nekk ki nga xamante moom mooy supérieur mbay guy gi di tax euh, Alioune Seye Junior année ndax ñu bari ñu ngi naan combat bi Alioune Seye Junior bëgg bëgg lenaan moo tax mu jël mbay guy gi lan ngay tontu foofu. waaw xam nga loolu lépp sant yàlla la ndax su ma demee ba toll ci làmb foo xam ne damay bëree jël adversaire ñu war war ma bëre ak moom sant yàlla la dégg nga man man man ndaw laa kon ñoom man dama teel a man dama teel man dama teel a siiw ay ay saakees dama lay ñaanal ñoom fan jëm yàlla leen yàlla leen jik ñu gën a dem ba ci kaw a kaw mais ñun ak ñoo ñoo ñoo fi nekkandoo woon dégg nga drapeau roi des mbapat day kon man doon naa roi des arènes ñoom Siteu ñoom ñun ak ñoom Siteu ñoom Sa ñoom ñëpp laale na ak ñoom yaa ma dégg mais nag làmb moo moo tëradi yaa ma dégg bi nii ci combat bi nii man wax waruma ndax moom lu ne wax ñu ko ñu ko gën a xotteekul laa bëri te boo boobaa mars lay a bëri moom comme nee nga doo dugg sa tànk waaw euh, li ma li ma li ma wax maanaam la ma tax ma bëri ak moom Fallou Ndiaye promoteur xam na la kon nag 31 mars loolu ma bëri loolu moo ma boole moom. mais kon da ngaa bëgg kon da ngaa bëgg wax ne Mbaye Gouy Gui du adversaire potentiel daaw laxasu ci combat bi moo tax nga jël xam nga Mbaye Gouy Gui man musuma rêvé ni dinaa bëre ak ndax maa ngi moom tolloo ñu catégorie yaa ma dégg mais mu taxaw Fallou Ndiaye xam na ko sama manager ma dégg suñu xam na lu tax combat taxaw kon jeex na maa ñëw yaa ma te combat nekk combat bu du ma ci échec waaw. Gracias. lu tax ma. lu tax boo a gis. Alioune Sèye Junior boo xoolee ñu adversaire yi mu bëreel yëpp kan la ci tolloon. kan laa ci tolloon kenn. laaj naa la ko ñi ma bëral ñëpp kan laa ci tolloon. ñëpp a ngand gën baax. bañ laa dëgg la. guy gi. yaa ngi bëre koo xam ne la 31 mars da koo soxla lu ko yitte ko ñor la li ma koy ñaan moom li muy wax loolu laa moom laa koy wax na dëggal boppam na dëggal boppam man bu dëggalee boppam rek làmb ji gaaw barke alxuraan bu bu dëggalee boppam làmb ji du mat minute. waaw yaa ma dégg pare naa lépp lépp pare naa ko Mbaye Diouf mi ma mujjee bëre moo gën a xotee ko. da nga koy da nga koy xaar. ah dama ni naa ko xaar ci kawam laa jëm. moom nee na sama kaw la jëm lamb ji dégg nga li ma la ku xef doo gis jël moom moo ko moom moom moom jeexal na lamb man jeexal na lamb ji arbitre rek moo ci des arbitre rek moo ci des pare naa lépp waaw mais avant maa ngi gërëm waay yëmbal man yëmbal laa dëkk yaa ma ne mais sama lépp géejawaay la ndax fa laay ndax sax ngoon fa laay dem tàggatoo fa laay dem wutee doole yaa ma ne mais teewul man ak am mburu yëmbal yi ñëpp dañoo bokk ndey bokk baay surtout armée maa ngi ko nuyoo passage sama sama doomu ndey sama seex garga Ah, ah, bu bu yëmbal dégg nga ak ak ak ak booy yëmbal Saalum liiru sama gars yi nekk bu yëmbal yaa may dégg mais soo xoolee Guédiawaye tey espoir yëpp a ñëw Marley mu fi fi sa bala mu ngi fi ñoon ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay Alioune Seye 2 mooy ñun ñëpp chaque fajar ñoo bokk na entraînement chaque jour ma fi yaa kara dégg nga teewul tamit yëmbal laa dëkk sama lépp yëmbal la maa leen gërëm bu baax a dee combat bi nga ñoom am am am leen jaral bu baax a baax waaw. li may li may mujjee wax mooy maa ngi euh, sama adversaire mooy Balla Gaye tamit maa ngi koy jaale tamit euh, sërëm bi gaañu di ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana suñu galaana li may mujjee wax mbay guy gi mooy man nekkuma di man di wax man kenn xamee may wax ah, mais nag mu ngi wax rek ngi laaw rasul bu jóge ci làmb ji